président Macky Sall ak Ablaye Wade dama jàpp ne tey jii nii lii askan yu bëgg mooy femme politique yi homme politique yi ñii di yëngu ci wàllu politique ñu jubboo ak moom askan wi ndaxte askan wi dafa jàpp ne ñoom ñëpp benn lañu ñoom ñëpp benn lañu fu boo waxee politicien tey naan cam ñoom ñëpp benn lañu ou presque donc askan wi pour man. demande sociale bi mooy naka la ñuy amee classe politique boo xam ne day réconcilier wu avec le peuple sénégalais réconcilier wu avec le peuple sénégalais mooy homme politique ak femme politique yoo xam ne dinañ wax lu ñuy def dinañ jëf lu ñuy wax bàyyi naxante bi bàyyi transhumance bi bàyyi deal sur le dos du peuple sénégalais. surtout di métti. voilà euh, ma lay nuyu Khady di nuyu Guy Fatou Abdou. Mm-hmm. nuyu tamit Babacar euh, sànq yaa ngi koy wax euh, tey jii ñëpp ñu ngi laaj ni est-ce que intérêt peuple bi ñu ngi ci retrouvailles yooyu parce que ñu ngi dégg ay stabilité ay paix ci biir communiqué bi mais instant bi ni est-ce que gisoo ni Sénégal déjà mi ngi ci jàmm xëy na ñoom ñoo bëgg a régler seen problème seen problème bopp. en fait jàmm dafa relatif. dama jàpp ne ñi nekk ci jàmm tey fii ci Sénégal mooy ñi nga xam ne bokk nañ ci pàccoo bi mooy ñi nga xam ne ñu ngi mos ci huit milliards de fonds politiques par an yi président de la République am wala cinq cent millions de fonds politiques euh, président HCCT wala président assemblée nationale mooy ñi nga xam ne ñu ngi bénéficier ci euh, benn ministère boo xam ne am na plus de soixante chargés de mission yoo xam ne caser une clientèle politique la mooy ñi nga xam ne ñu ngi dund ci ay institutions inutiles et budgétivores mooy ñi nga xam ne dañuy luubal alalu askan wi te dara du leen si topp dala dara du leen si fekk pour man ñooñu ñoo nekk si jàmm mais ñeenti jigéen yi nga xam ne bés bu nekk ci Sénégal ñu ngi ñàkk seen bakkan euh, d'une grossesse ou de suite d'une grossesse ndaxte amuñu sage-femme yu doy wala gynécologue yu doy ñu ak seen i mbokk ak seen i doom nekkuñu ci jàmm ndey di met ñi nga xam ne depuis deux mille euh, mille neuf cent soixante ñu ngi toll deux mille dix neuf cinquante neuf ans après indépendance. ñu ngi am téeméer boo jël ci askanu Sénégal cinquante quatre pour cent yu mënul jàng abajada maanaam analphabète ndey di met ñooñu nekkuñu ci jàmm. donc jàmm c'est relatif jàmm du bal tàkkul fetal tàkkul. justement jàmm mooy jàmm bi fi ñu ko bëgg a orienté. mooy 300000 sites il y a 300000 nouveaux jeunes demandeurs d'emploi chaque année au Sénégal. tout cent fait 300000 nouveaux jeunes demandeurs d'emploi yooyu 30000 rek lañ siy jox liggéey. ñenn yi ñu ngi dee désert du Sahara ñenn yi ñu ngi Rebeuss ñenn yi ñu ngi dee dans la mer Méditerranée donc ñooñu nekkuñu si jàmm wax ji nag mooy man personnellement ay euh, jubóo ak yooyu mun nañ ko rafetlu waaye wax ji mooy jubóo jooju. naka lay régler trois cent mille nouveaux jeunes demandeurs d'emploi yi yi yi yi entrer chaque année sur le marché du travail naka la ñuy fexee ba au lieu de euh, euh, trois mille euh, trois mille xaw ma neuf cent maanaam policiers yi nga xam ne moom la ñu am Sénégal war a am quinze mille policiers naka la ñuy fexee ba am quinze mille policiers d'accord naka la ñuy fexee ba Sénégal yàlla may ko phosphate pétrole gaz ak ñoom seen ba pare mu bokk ci ñaar fukki réew ak juróom yi gën a ndóol ci àddina bi pour man loolu la ñu war a lijjanti naka la ñuy fexe ba éducation nationale bi dox di met faatu Abdou chaque année baccalauréat sur cent candidats soixante cinq yi échoué ñooñu nekk ñu ci jàmm donc mun naa continuer lim les problème suñu parce que ñoom ci seen communiqué doguma la ci seen communiqué ni ñu tuddee jàmm bi ak ni ñu ko waxee comme c'était comme si que ni euh, dënn yi dafa tàng bu ñu wax bu ñu ñu juboowul bal mën na tàkk alors que comme li nga wax priorité bi feneen la. coow effectivement am na coowal 94 milliards am na. coowal Aliou sunu xawma 6 000 milliards wala suñu cent 000 am na. effectivement coow am na askanu Sénégal mais dañ leen di xool dañ leen di gis dañ leen di déglu nga xam ne ñu ngi ne tekk mais ñii du luñu ñii xëy na peut-être que c'est le calme avant la tempête et que ñoom dofuñu jamono jii may wax ak yéen waa Guinée ñu ngi xeex pour bañ troisième mandat ñoom ñu ngi coow troisième mandat ñu ngi mëbët troisième mandat mais mun na am loolu nit yi duñ ko seetaan jamono jii ñuy wax ak yéen ci yeneen réew gars yi ñu ngi résister ñu ngi ne déet donc loolu mun na contaminer fii ni mu amee woon genre effet de contamination ci li ñuy woowee printemps arabe mu commencé Tunisie dem ba Libye dem ba Égypte dem Burkina dem feneen ak feneen ba ci Sénégal xaw nañ ko fi gis donc ñoom dañuy jéem a anticiper anticiper mooy lan naka laa fexe ba bu ma defee troisième mandat wala troisième mandat bu jàllulee sama candidat mën jàll ci nii sans réformer le processus électoral te loolu leen may ñu jàll bokk na ci ñi nar a génn ëllëg bu ñu bëri bu ñu bu ñu am doolee donc loolu bokk na ci tactique d'affaiblir le peuple euh, en fait euh, l'opposition les partis en fait politiques te loolu askan wi nag moo war a xool moo war a jàngat les membres d'une même famille politique nañu juboo pour man xëy na day clarifier le jeu politique parce que effectivement politique dafa dellu ginnaaw bu baax a baax fii ci Sénégal amoon na jamono yoo xam ne di nga dégg waaw waa RND xaw ma les nationalistes wala affaire yooyu euh, voilà après nga dégg les communiste après nga dégg les libéro mais fu mu nekk nii nous sommes dans une nuit noire boo xam ne tous les chats sont gris peut-être que euh, politique ci Sénégal dafa laaj lisibilité lisibilité boobu mooy xar yi si xar yi bëy yi si bëy yi muus yi si muus yi ku nekk ñëw proposer sa programme léegi nag askan wi xool ndax ñii seen juboo mooy lan dañuy dañuy dañuy wëyal français CFA ou dañuy wëyal accord de partenariat économique ou pas dañuy wëyal accord de Cotonou ou dañuy wëyal seen diggante ak euh, les institutions de Bretton Woods ou pas dañuy wëyal le type de gouvernance cette démocratie représentative ki est antidémocratique ou pas et cetera loolu mooy ndeyu wax ji pour man waaw ñaari nit yu juboo bokk njaboot politique baax na mais li ëpp solo mooy est-ce que dina am réconciliation entre la classe politique et le peuple sénégalais parce que dafa am fracture dafa am césure dafa am rupture dafa am diggante bi dox diggante les 16 millions de citoyens sénégalais ak peut-être les 1 pour cent même pas 1 pour cent de góor ak jigéen yi nga xam ne ñooy def politique di ay ayaloo d'accord ci bopp état bi di séddoo di noos pendant ce moment ou le peuple sénégalais il saigne ñoom ça baigne pour eux alors ci dynamique boobu sax la ñuy euh, yeggalee Babacar est-ce que euh, xel mën na nangu euh, que maître Abdoulaye Wade ak président Macky Sall toog waxtaan te ci menu bi ka Karim Wade bokk ci tout en sachant que justement moom moo nekkoon origine bruit bi amoon entre ñoom ñaar. merci et bon je crois que loolu moom mënul nekk. li li gi wax rek moo am je crois que communiqué bi ñu génne moom loolu it nit ñi mën nañu ko xaar ah mënuñu woon xalaat ni communiqué bi dina wax Euh, déjà nit ñaa ngi doon xalaat nii bu Ablaye Wade defoon déclaration sax wala président Macky Sall nit ñi mën nañu détecter un peu le contenu de leur de leur discussion. Mhm. moo tax ñu yónnee keneen mu wax ko mu lire discours bi je crois que loolu la mais li nga wax dëgg la kaawu Karim Wade moom mën nañu ko bàyyi. Mhm. parce que au delà également de de li ñu bokk vraiment benn mouvement euh, boo xam ni c'est des c'est des trucs ñoo bokkoon fi ñu jóge PDS je crois que également Ablaye moo jàngal lépp Macky Sall. Mhm. xam moo tax ñu bëri doon xaar ndaje bi. au-delà même de Sénégal lu ci mën a gagné ou pas parce que Ablaye Wade moo jàngal Macky Sall politique. bi mu jógee ànd jëf dans les années quatre-vingt ñëw PDS Ablaye Wade teete ko ba yóbbu ko fi mu nekk ñëpp jaaxle woon nañu bi ñu gisee quand même Abdou Diouf euh, envergure bi ko bi mu am c'est en tant que ancien président mais nag. Macky Sall jox ko gëdd boo xam ne jox ko woon Ablaye Wade ñëpp doon xalaat ni xuloo boobu fan la jëm c'est vrai le cas Karim Wade ñëw gën a yokk nag fossé bi. Mm-hmm. à cause de la CREI ak yooyu juddu donc ñëpp am na sax ñu commencé naan est-ce que finalement Ablaye Wade moo négocié est-ce que Karim Wade tiré wu les les ficelles à partir de Doha yooyu yëpp wax nañ ko. Mm-hmm. mais quoi qu'il en soit ñëpp mën xalaat ni Karim Wade moom même bu fa nekkul woon pose moins de problème bi nga xamee ni Macky Sall ak Abdoulaye Wade gisee nañu d'autant plus que bu ñu gisee il faut que loolu am maanaam euh, gii li mu wax léegi analyse lucide bi mu def mooy c'est vrai que nécessairement c'est un mouvement boo xam ne il faut que ñu dem ci parce que Ablaye Wade digoon na ni cinq ans dañ siy nekk gisewaat ak Macky Sall moo gën a yomb. Mm-hmm. peut-être ça va être plus difficile avec Idrissa Seck ak les autres mais loolu mën nañ ci yaakaar maintenant jusqu'où nag jubóo boobu fan la jëm. Mm-hmm. man gisuma si intérêt Sénégal mënu ma ko see gis. en tout cas du point de vue ni dëkk bi di fonctionner par rapport à des changements si fa dëkk bi ni mu man mun ma ko gis c'est des c'est des c'est des arrangements politiques yoo xam ni maintenant mën nañu réfléchir comment la ñuy mën a ànd politiquement mais yaakaaruma ni quatre ans ou cinq ans yi si des que dina am lu mu yokk ci Sénégal même si quelque part. Mm-hmm. Euh, dugal nañ si communiqué bi communiqué bi affaire pétrole man loolu ñaari jàngat laa ci mën a am c'est vrai Karim Wade ñëpp xam nañu c'est un homme d'affaires ah. peut-être que quelque part am na exigence yoo xam ni def na ko ci. parce que gis nga Sénégal ni muy doxee nii ñu bëri ñu wax ko ñàkk a wax beaucoup d'hommes d'affaires ak beaucoup d'hommes politiques yi nga xam ni peut-être yu demee pétrole bi daf leen a am na ñoo xam nag dañ ciy xeex pour askan bi. Mm-hmm. mais am na ñoo xam ne dañuy xeex pour am ci place. parce que aujourd'hui dafa mel ni affaire bi dafa demee boor. Mm-hmm. entre ñi nga xam ne ñoo impliqué wu ci pétrole am na ñu bëri nag il sont en train de mettre la pression pour Macky Sall même bu renégocier le contrat bi comme d'autant plus que am na ay kii yoo xam ne ñu ngi koy joxe ñu man si am place donc loolu mën nañu am yaakaar ni ab Ablaye Wade ni ma ko xamee ak peut-être Karim Wade avec ses ambitions ak prétentions yi mu mën a am Ablaye Wade du bàyyi président Macky Sall pétrole bi en tout cas les ressources naturelles ni mu demee nii. peut-être pas exactement pour l'intérêt du Sénégal même bu fekkee looloo ngi également pour ñoom ban place ci war a mën a am. Mmh. loolu c'est important donc moo tax ma xalaat ni aujourd'hui intérêt Sénégal du ci mën a am à part que peut-être même mën nañoo dem ba membre PDS dugg encore ci ci gouvernement Macky Sall. il faut s'y attendre ah gouvernement d'union nationale. ah oui élargi euh, oui de gouvernement euh, en tout cas de majorité élargie. parce que Abdoulaye Wade entrisme tàmmal nañu ko. donc moom du war a nekk benn problème pour que ay ministres am dugg. loolu donc il faut s'y attendre d'autant plus que opposition dafa metti gis nga loolu ça c'est de la réalité yoo xam ne ñi nga xamee ni ils sont pendant sept ans seen gafa daanaka rës. Mm-hmm. aujourd'hui ñu si euh, euh, de d'ailleurs assemblée commission yi ñu yokk loolu ñëpp xam nañ ko bu ñuy xajal opposition bi la ñu xajal. am na si ñoo xam ni des députés de l'opposition yoo xam ni fi mu nekk nii ils sont en train de négocier. Mm-hmm. te mën naa laa wax ni commission yi ñoom ñoo ci am place. alors man bëggoon naa ñëw un peu sur la forme. Mm-hmm. Euh, une réconciliation wala une rencontre boo xam ne def na plus de heures de temps mm-hmm. après ñu génn de heures à heures bi ñu génnee communiqué bi boo ko dee seet français wolof c'est trois minutes mhm. et que même dañu def choix ci mots yi euh, kàddu gi ni muy gàttee loolu yëpp ci forme bi mhm. tey ba ñu ko doon jàngatal euh, lan moo waral lan moo waxal loolu non li ko waral mooy euh, nécessairement mënuñu woon a xalaat ni en tout cas c'était entre ñaari chefs d'état avant tout deux chefs d'état mën nañu xalaat ni për être du mel ni ñaari parti politique yoo xam ne dañoo daje avant tout ces deux chefs d'état waxtaan nañ lu yàgg waxtaanu biir nekk loo xam ni mën nañ ci xalaat loo xam ni Ablaye Wade mais damay xalaat ni juboo am na ci am na yoo xam ni nas nañ ko fa si seen mbir waxtaan d' autant que président Macky Sall nee na dina gisi Ablaye Wade si communiqué bi dina ko seeti. visite retour euh, donc am nañ yaakaar que ni suite bu amee rek que maanaam gàllankoor amuloon. le fait que mu yàgg déjà mën nañ am xalaat ni waxtaan bi am na ci lu mu débouché am na ci lu mu génn loolu liggéey wax mu am dañ ko gis mais dans les actes qu'ils vont poser dans les jours et les semaines à venir mais pas ñu koy wax. leneen loo xamante ne aussi bëggoon naa ko laaj mooy gis nañu ne les proches collaborateurs de Macky Sall ñoom ñoo nekkoon ci biir salle bi ku ci ñoom ñoo ko jege mm. Abdoulaye Wade plutôt ñi àndal moom mooy Mayoro Faye Nafi Diallo ak euh, ki nga xam ne moom mooy conseil en communication am. Mhm. Euh, lan mooy expliquer loolu. waaw mais maanaam c'était tellement restreint mbir yi dafa mel ne dañu dañu ko tënk dañ doon bañ mbir yu senn wala dafa am ñu fa wax yoo xamante ne il faut que mu yam euh, ci benn nombre boo xam ne dafay ndaw. waa mais comme dugguñu biir nekk ñoom ñaar rek tooguñu mais nécessairement ça ne peut être qu'avec un nombre restreint. parce que lañ fay waxtaan quand même ça engage déjà ñaari parti moo tax nga gis euh, euh, les proches collaborateurs truc et également et les représentants de de mhm. Karim Wade nekk fa woon mais ay noppam ay bëtëg nga fa woon parce que ñii nga fi tudd yëpp mooy ñi nga xam ni Karim daf leen a dugal si PDS maanaam génération du concret ñëwlu bi nga xam ne dugg nañ PDS donc loolu bëtu Karim la ak ñeneen lu ñu fa mën a tënk aussi ñoom lay ko parce que Ablaye Wade euh, je crois que de sortie pour lui donc moom nécessairement mënu woon a toog moom rek aussi waxtaan ak waxtaan ak euh, Macky Sall d'autant plus que li ñu fa def ñi koy appliquer mooy xale yi mu fiy bàyyi. parce que aujourd'hui Ablaye Wade jaanam wàcc na je crois que sax li nga xam ne moo gën a retardé demam sur la de la scène politique c'était la rencontre avec Macky Sall il fallait que mu gis ko tënk ak moom loo xam ne leer na pour partem am si base bu dëgër bu mu mën a continuer pour mu dem d'autant plus que même statut de l'opposition wax nañ ko si. statut de l'opposition duñ ko jox Idriss Seck de ñaari milliards yooyu ñuy xaar qu'est-ce que pourquoi ñu dugal ko ci communiqué bi aujourd'hui ça, ça intéresse le PDS ben mais mais mais man naa sans risque de me tromper que ni sax peut-être si si PDS la jëm mhm. parce que aujourd'hui législative yi PDS tënku na si bokkul woon si élection yi donc bu ñuy joxee présidentielle bu ñuy joxe euh, comment on l'appelle Euh, nu ma nuñ ko lu ñu wax léegi xaalis bi deux deux milliards yi. Mhm. Euh, statut de l' opposition koy jox wala leader de l' opposition Ablaye Wade pas Ablaye koy jox. alors deux parce que ñoo ëppale woon peut-être voix. Mhm. Euh, au niveau des législatives. voilà ci politique acte bu nekk dafa am solo. Mhm. benn acte jarul négligé man li may laaj toujours mooy ci communiqué bi dañu gis dañu def communiqué conjoint mais ñu ànd ak. président Wade moo ko liir. loolu ndax am na jàngat ci wàllu politique. Mhm. wala cër bu ñu jox président Ablaye Wade la. waaw cër bu ñu ko jox la mën nañu waxee noonu parce que xam nga Seydou Gueye xam nga c'est vrai que comme juboo am na cër bu ñu koy jox la mën naa wax loolu parce que bu fekkoon Seydou Gueye peut-être moo ko liir euh, nit ñi mën nañ ko gisee neneen le fait que vraiment nga jox doole Abdoulaye Wade jox ko cër bi je crois que man loolu rek laa ko laa ko mën a expliquer surtout que Mayoro quand même peut-être gisaguñ ko envergure boo xam ni masul nekk ministre masul nekk dara loo xam ni on a l'impression que finalement c'était pas euh, euh, Seydou Gueye en tant que ministre qui était impliqué c'était pas l'État qui était impliqué dañ ko jox ko xam ni rôle politique rek la am parce que donc là mën nañoo comprendre ni rencontre bi c'était entre ñaari ñaari parti politique au-delà d'ailleurs que Abdoulaye Wade nekk ancien chef d'État nekk papay euh, Macky Sall ci politique le fait que Mayoro liir ko mën nañoo am yaakaar que ni rencontre est-ce que est-ce que du Mayoro aussi ñoom ñoo communiqué c'est le PDS qui a envoyé des communiqués dans les organes de presse pour wax ne Abdoulaye Wade jour tel lañ koy recevoir moo tax ñu jox leen ñoom aussi ñu def seen communiqué conjoint moom mu lire ko wala du loolu moom mooy lecture non je crois que euh, PDS bi li ñu ko jàll mooy dañu la précision bi ñu commencé communiqué bi d'ailleurs le premier mot li ñuy wax ni euh, le premier mot dañu ne sur demande euh, du président Macky Sall man je que loolu moo wundu communiqué boobu mm-hmm. c' est vrai Macky Sall moo demandé le président Macky Sall va dire donc loolu c' était c' est très important pour ñoom. d' alors peut beneen euh, question. Hmm. Euh, sànq yaa ngi wax ci biirum question euh, pétrole ak gaz bi alors nit ñi ñi ngi xalaat ni Wade mënta dem pale ba jeexal te du tudd tudd Karim Wade mais tamit pétrole enjeu la. Hmm. parce que wadd moo lancé woon appel appel d' offre moo defoon daanaka début bi yëpp moom moo teg fondement bi mm-hmm. Macky ñëw eggale est-ce que tey ñu jàpp ni à l'avenir Wade tamit gis boppam bu baax ci pétrole bi oui Wade war na si mën a gis boppam d'autant plus que tamit li ñuy wax peut-être Euh, guerre amul euh, pour la première question bi ngeen laajoon mais apaisement du climat politique et dafa am solo mm-hmm. si président Macky Sall d'autant plus que premier mandat dafa am rupture totale parce que affaire jaay doole la woon loolu moom duñ ci ñëwaat ñëpp gis nañ ko léegi jot na parce que amatul enjeu politique pour moom à moins que troisième mandat parce que loolu si ay actes yi muy posé ëllëg lañu koy xam. mais pétrole bi Ablaye Wade moo teg lee bases contrat yeeg yooyu même li ñuy wax sax li bëri li nga bëri xam ne exonération la ab Ablaye Wade la. parce que boobu gisuñu. comme gisuñu nag société yu bari pour ñu ñëw explorer mais ñoom bu ñu leen neexee ñu ne bala may bu ma trouvé li ma explorer yëpp da ngeen koy génne maanaam exonération yi mënoon nañ ko comprendre en son temps. léegi nag a trouvé du pétrole maanaam Macky Sall moom moo ko trouvé. léegi peut-être que njëkk nañ ci Ablaye Wade te xam naa ni lu muy regretter la wala peut-être euh, ci biir këram bu sañoon moom mu trouvé ko mais comme yàlla def na aujourd'hui Macky Sall am na deuxième mandat te moom fekk na ko muy dund PDS taxaw te mu am possibilité toogaat ak Macky Sall waxtaan mais on peut aisément comprendre que Macky Sall war na leen si xajal. d'accord tey est-ce que PDS dina nekkati à l'aise ci plateforme aar lu ñu bokk. may fàttali rek ni bii toogul fi aar lu ñu bokk tey France dégage la fi toogal. mais est-ce que tey PDS dina nekkati à l'aise ci plateforme boobu nga xam te depuis le début doon xeex pour transparence non PDS je crois que man ni ma xamee Abdoulaye Wade stratégie mooy il faut s'attendre à ce que mu crée yeneen yeneen coalition ou alliance ci opposition bi. dégg naa sax temps yii je crois recevoir na Pape Diop mais mais mais aw ma si donc tu vois. Mhm. Euh, PDS Ablaye Wade dina jéem a créé waat beneen coalition au niveau de l' opposition. parce que moom it toujours il faut mu wan mu wane boppam mënul nekk si biir opposition te jiitewu ko. donc nécessairement mais aar li ñu bokk ñoom je crois que benn moment li ma doon reproché aar li ñu bokk benn moment c' était vraiment un mouvement de la société civile. bu ñu gisoon euh, man ma leen di encouragé lu bëri mais benn moment dafa am infiltration wala en tout cas politique yi dañu ko jël moom ko. kon mën nañu xaar PDS génn ci aar lu ñu bokk. Euh, euh, non PDS mi ngi ñu bokk. mi ngi ci mi ngi ci biir non je veux dire moom. mais nekkinam le fait que ñu dégg président dem li nga xamante ne nii moo nekk ci communiqué bi ñuy wax ni président jox na ay recommandations ci mbirum gestion ressources naturelles yi est-ce que dina tax léegi PDS nekk à l'aise ci biir aar yi nag ça dépend. Mhm. parce que loolu tamit laconique. communiqué la ko moo ko indi man je crois que waroon nañu gën a leeral mhm. au moins si communiqué bi ah lan mooy gestion d' autant plus que peut-être Macky Sall moo exigé phrase boobu nekk si dañ ne li ñuy def baax na. Mhm. en fait loolu euh, loolu laa bëggoon ñëw parce que peut-être que nos paroles nous trahissent mais li nga xamante ne moom la wax ci tubaab. <laughs> Uh-huh. ak li ma yoroo wax ci français. Euh, dégg naa la keroog nga ciy communiqué quoi oui moom aussi jaaxal nañu bëri parce que def ne baax na. Uh-huh. mais na ko gën a saytu loolu moom bëggoon naa. na ko gën a ñoŋal quoi na ko gën a ñoŋal. naa euh, buy bëggoon naa buy rek daal di ci daal ñaar ñëpp. non man na yeggal non parce que li may wax mooy man bi ma déggee dama ni xam naa ni moom phrase boobu dox na moom. Mhm. Macky Sall moo exigé mu nekk ci communiqué bi. Mhm. voilà mais mhm. man en fait sama question encore une fois mooy PDS dafa bokk aar lu ñu bokk. oui oui. ñu gis tey président dem palais wax waxu pétrole. alors est ñoom dinañ nekk à ci biir plateforme bi. mais pourquoi pas. pourquoi pas bu fekkee gisaguñu deal. bu fekkee moo tax ma ni communiqué bi dafa waroon a leer. Mhm. parce que moom nee na war a ñoŋal. Mhm. baax na mais dañu war a ñoŋal. ça veut mhm. dire que y a mu ne Sénégal yi peuple bi gën gën see gis boppam. si j'ai bien compris euh, waaw donc une bonne gestion des ressources naturelles une bonne pétrole c'était gaz. loolu loolu la ñu wax une bonne gestion des ressources naturelles mais loolu c'est c'est un peu laconique mooy li ma wax léegi. c'est que maanaam si au goût du jour ñu ñu négocier waat ko wala lan la on on peut pas comprendre parce que aujourd'hui bu fekkee négocier xam nga le pétrole dafa doy waar. aujourd'hui ni ñu ko tënkee Sénégal lim ci mën a am rek mooy que ni li nga xam ni taxes yi dañ ko ciy am. aujourd'hui malgré la rencontre bi ñu def localité yi nga xam ni fa la entreprise yi installé wu. Mhm. nga xam ni loolu tax benn responsabilité sociétale d'entreprise la. maanaam mu xool ni mu leen di dimbale. man euh, vraiment daf ma jaaxal peut-être que je maîtrise les enjeux mais man pétrole bi. Mhm. Euh, dama yaakaaroon ni. pétrole dëkk bu mu am ak gaz dañu dañu dañuy joxe sabar dañuy maye sabar ah oui mais parce que parce que man aujourd'hui euh, euh, mais ñoom optimisme bi Sénégal am sax ci pétrole j'ai l'impression que euh, ñi yore dëkk bi dañuy jéem a tase optimisme sénégalais boobu euh, euphorie boobu mm-hmm. nan leen maanaam que sax Sénégal parce que ñu ngi dem ba naan 500 milliards lañ am par année. maanaam li tax si sax recette douanière wala yooyu di joxe sax xaw ma mais pétrole bi sax du ko joxe. ñu ngi taase man loolu vraiment j'aurais bien voulu par rapport pourquoi nu mu mën a demee ba que ni les mu ñu gis boppam tant que. peut-être d'ici trente ans ñële parewuñu seen contrat. parce que mais entre temps pétrole bi dina jeex gaz bi dina jeex. donc je vois pas comment en tout cas le président mag euh, Ablaye Wade ak Karim Wade dinañ mën a dugg ci pétrole bi en dehors vraiment du. renouvellement des comptes lan lan lan nga déggee loolu nga xamante ne euh, euh, kii di Mayoro Faye wax na ko ni ñu yoree pétrole bi baax na mais ñu gën a saytuwaat loolu noonu yow ban jàngat nga ciy am nan nga ko déggee noo ko comprendre. Hmm, ko comprendre. comprendre ma ko <laughs> loolu laa lay wax Fatou Abdou <laughs> euh, comprendre ma ko mhm. parce que euh, yaa ngi doon tudd sànq euh, wala am na ñu ngi doon tudd sànq ne PDS mu ngi ba bokk aar bokk mhm. or aar li bokk li tax mu créé wu c'est parce que d'accordul ak saytu winu pétrole bi mhm. c'est parce que jàpp na ne saytu winu pétrole bi doxul jubul leerul donc euh, léegi c'est vrai que le PDS parti souverain la mun na bokk ci benn coalition noonu laa ko mun woowee ci benn mbootaay muy aar li nu bokk ba pare am sa souveraineté de parole et de ton mais dina am lu xaw a doy waar tuuti nga bokk ci groupe boo xam ne day naan saytu winu ressources naturelles yi baaxul doxul ba ñuy def ay manifestation ñu si jàpp ay nit mhm. damay fàttali manifestation sur le pétrole commencé wul sax ak aar li nu bokk damay fàttali ne bu dee juumum euh, atum 2016 octobre 2016 euh, boobu manko la woon euh, manko wattu Sénégal ou quelque chose comme ça defoon na manifestation boo xam ne dañ ko dispersé woon PDS bokkoon ci manifestation boo xam ne man ak ñeneen jàppoon nañu benn week donc affaire coowal pétrole bi yàgg na léegi qu'est-ce qui a changé entre temps ba xëy na waa PDS mën a wax ne saytu win bi euh, baax na waaye. Hmm. peut mieux faire. Hmm. man personnellement gisuma lu soppeeku. au contraire lépp mu ngi gën di ñagas lépp mu ngi ça va de mal en pis euh, benn euh, beneen bi mooy que toujours en fait ci daje bi foog naa ne te mën naa comprendre ne. bokk na ci euh, yitte président Ablaye Wade ak PDS le cas Karim waaw parce que Karim dafa nekk en prison à ciel ouvert noonu laa koy woowee waaw dafa nekk en prison à ciel ouvert en dehors du Sénégal. Mm-hmm. et j'en profite pour waxaat li nga xam ne moo yàgg nekk sama position li ñu def président Karim Wade du dëgg du yoon d'accord dañ ko jàpp tëj ko gracier ko ba pare dàq ko naxaj ci biti loolu amul fenn. loolu kenn du ko def Karim Wade c'est un citoyen sénégalais li ñu def Karim Wade te askan wi mënu cee dara loolu moo indi affaire u Khalifa Sall bu ñu seetaanee moo nar indi ñu tëj suba ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko. donc mun naa comprendre sama xel mun na nangu président Ablaye ak waa PDS lépp lu ñu mën ak lu ñu mënul. pour Karim Wade mais li ñu gis nii ñu bëri dañ ko tiddi tuddee deal boo xamante ne euh, moom mooy raam wala bokk moom la ñu gis ci diggante Abdoulaye Wade ak li nga xamante ne moom mooy ndaje mi keroog ak le président Macky Sall est-ce que tom Karim Wade génnam sax jógewul ci loolu maanaam ay politiciens yoo xam ne dañuy mbiicoo mbaaloo baskan wi chaque jour ñoom bu ñu paree dañuy seetaan rek. xam nga pour man euh, Karim Wade président Abdoulaye Wade ak PDS ñaari choix la ñu amoon benn mooy. ba Karim Wade toog Sénégal donc toog kaso continuer xeex continuer xeex ba pare prendre en charge les préoccupations des populations mm-hmm. beneen bi mooy kaawu Karim Wade tax ba président Wade ak le PDS def ay compromis def ay compromission def li nga xam ne moom ngay woowee ay deal ba xëy na askanu Sénégal mën leen bàyyi wala ne PDS cam pour man ñaari choix yooyu la PDS am parce que pour man amul trois wala quatre choix Karim Wade ñëwaatam nga xeex ko continuer xeex ci li nga xam ne moom mooy soxla askan wi wala ñëwaatu Karim jaral la sax d'accord nga bàyyi li nga doon xeex te mu leer na ne lii le dëgg la lii c'est juste et mhm. damay joxe ñaari misaal euh, ab ah, président Ablaye Wade dafa bañ signe accord de partenariat économique APE. Mhm. Macky Sall mu signé ko qu'est-ce a changé président Ablaye Wade dafa réduire à sa plus simple expression l'armée française président Macky Sall dooleel armée française mais ñaar yooyu ay actes yu contradictoire la cest dire que tey jii nii est-ce que PDS ak président Ablaye Wade mais pare nañu donte président Macky signe na APE donte delloo si na armée française donte yeneen ak yeneen d'accord pare na pour nangu ànd ak Euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy alors Guy on parle de milliards yoo xamante ne nee nañu moom la Karim amal li nga xam ne mooy askan bu Sénégal procès boo xam ne def na diir te ku wax procès wax li nga xam ne mooy dem biti réew defi enquête jël billet avion tëdd ci ay hôtel loolu yëpp di xaalisu Sénégal bu fekkee ne yéen ñi nga xam ne yéenay xeex bonne gouvernance mbir yi dafa mujjee ci dañu koy waxtaane ñu bëri xalaat ne waxtaan bi diggante président Macky Sall ak le président Abdoulaye Wade na ci mbirum Karim Wade ñu bëri ci ay jàngat jàngatkat loolu la ñu wax yéen bu ngeen déggee loolu lan la di def yéen loolu bokkoon na ci tomb yi ma naroon euh, wax moo di ne président Macky Sall moo wax ci benn télé international ñëpp ñuy dégg archive yaa ngi fi ne moom moo gracier Karim Wade mais dina fay bu fayulee ñu def ak mi ñu def ko ni ñu def oustaz Taïb Socé maanaam contrainte par corps qu'est-ce qui va se passer mm-hmm. euh, fan yi di ñëw ay bés yi di ñëw dinañu wax lan moo nar a am euh, mais bu ñu dara bett pour man dara waruñoo bett ci ñenn ci langue politique bi. Mhm. li ñu nangoo euh, def walla wax pour rekk am jàmm. parce que encore une fois. Mhm. jàmm président Macky Sall ak ñu ñu àndal mooy naka lañuy fexe ba coow du am manifestation du am mobilisation du am troisième mandat jàll. Mhm. wa illah ki nga xam ne moom mooy candidat. Euh, président Macky Sall mu jàll ndaxte casserole yi dafa bëri coow li dafa bëri président Macky Sall xam na ne bu nekkatulee président il y un risque risque bi mooy ñu laaj Aliou Sall risque bi mooy ñu laaj Mansour euh, fay ci affaire Suez euh, ak SDE mm-hmm. risque bi mooy ñoom ñëpp Mamour jàlloo bu leerul fii dina leer ci beneen président mm-hmm. donc lan soit man ma faluwaat def troisième mandat comme ni ko Alpha Condé di ko jéemee soit kii di falu ma am ay garantie ne il est de l'APR wala du PDS wala beneen am ay garantie ne d'accord kooku bu fàlluwee am a place du inquiéter sama benn xarit sama benn mbokk sama benn njaboot. Mhm. risque bi mooy dafa am lu bees élection présidentielle bii passé et pour man bokk na ci enjeu ci ci danger yi président Macky Sall gën a gis Ousmane Sonko Pastef coalition Sonko président coalition Jotna. Mhm. dafa multiplier par en un an et demi li mu amoon jamono législative 37 000 mille 600 000 voix en un an et demi amul kenn tey jii nii mu nam su ba mu changé tey jii nii amul kenn ku am marge de progression bu bëri ci wàllu politique tey ku dul président Ousmane Sonko. dinañ ci ñëw euh, ci tout à l'heure plus danger mooy naka la ñuy fexe tamit. ba jéem a bâtir un front tous contre Ousmane Sonko. isolé ko isolé ko isole boo xam ne waaw wala ñu tëj ko. wala ñu rend ko inéligible mhm. wala même s'il éligible bu demee élection du gagner pour fexe ba le camp de Macky Sall conserver le pouvoir d'accord alors pour pour dellu ci ci gestion ressources naturelles yi est-ce que amoo leen impression que combat bi dafa nekk di leen échapper bu ñu seetloo ni que ça tire en longueur et que ay coow yeneen ñu ngi ñëw di tegu ci kawam et que sénégalais dafa am capacité ci gaaw fàtte man en tant que membre du FRAPP li ma mun wax mooy nit ñi ñu ngi def li leen war xam nga def li leen war mooy lan gis ne Sénégal mam yàlla da ko baaxe alal yu bari xel mënul nangu ñu continuer bokk ci ñaar fukki réew ak juróom yi gën a ndóol ci àddina bi déedéet mënatul nekk bu bu fekkee loolu dafa am séddale bukki moo am bi bukki bi njur bi sàmba askan wi nekk di dee alors li ñu war mooy yeete mooy xamle mooy wax mooy ne déet waaw boo gisee lu la métti na nga ko méttitlu ci jëf ci taxawaay boo ko mënul nga méttitlu ko ci wax boo ko mënul nga méttitlu ko ci xol defe naa démocrates yi ñu ngi def li ñu mën ci fànn boobu léegi nag est-ce que askan wi dina répondre ou pas loolu ça ne dépend pas forcément ci ñii def seen liggéey. Mhm. waaye pour man bu ñu euh, bu ñu kii bu ñu découragé bu ñu tàyyi. d'accord bu ñu tàyyi nañu continuer def seen liggéey mais quand même nañu xam ne itam jamono ji nga xam ne ñu ngi jéem a mobiliser population bi di leen di conscientiser ñeneen ñi du ñu toog inerte du ñu toog ne tekk du ñu toog ne meng dañuy jéem a produire ay contre-feu football bi mooy coupe d'Afrique bi jéem nañ ko utiliser comme contre-feu Euh, disparition ndem si yàlla Ousmane Tanor Dieng yàlla na ko yàlla yërëm jëm nañ ko utiliser comme contre-feu basket bi jëm nañ ko utiliser comme contre-feu sama arrestation jëm nañ ko utiliser comme contre-feu au ngay wax maanaam pétrole ak gaz ngay naan libéré Guy Marius Sagna arrestation Adama Gaye jëm nañ ko donc ils vont continuer comme ça euh, Masalikul Jinaan bi jëm nañ ko utiliser comme contre-feu retrouvailles yi dinañ ko jëm a utiliser comme contre-feu mais également pour affaiblir mais ah, yéen aussi seen stratégie war ngeen war ngeen faire face maanaam yéen di utiliser mm-hmm. li xam ne mooy stratégie yoo ne bu ñu tegee dara ngeen tegaat dara comme da ngeen teg ñoom ñu teg yéen ngeen loo xamante ne xam nga boo waxee yéen day mel ni mbir mi ñaar yi bon waa plateforme aar lu ñu bokk mm-hmm. dinañ wax seen gis-gis <laughs> man teewlu ma fi aar lu ñu bokk mm-hmm. mais li ma a feeñal surtout mooy que ñu xam ne mbir mi pour man du face a fas am na ñetteel am na wii ñi yore nguur gi ñi ñu fal war a nekk suñu surga mais amuñu taxawaayu surga dañu war a servir le peuple sénégalais. mais nekkuñu di servir le peuple sénégalais ñi nga xam ne nee naan déet nan bi bu leen ko omelette. ñii naan dañ koy omelette dañ koy lekk. Mhm. mooy mooy ñi nga xam ne ñoom la ñuy fal ñee naan bu bu leen ko omelette mais am na troisième camp troisième camp mooy yéen ñii. ah waaw yomb na nga ne yéen ñii. man mel na yéen ñii. <laughs> ak ñi ñuy seetaan ñun ñii ñan la presse. déedéet maanaam population bi. le peuple ñii ñi ñuy seetaan ñi ñuy déglu. Mhm, parce que tamit mbir mi du sama mbir. mbir mi du mbiru aar li nu bokk. mbir mi du mbiru Babacar. mbir mi du mbiru Frapp suñu mbir la ñun ñëpp. léegi nag comme ni ma ko waxee nous on fait du mieux que nous mhm. beneen bi mooy foog ñu comprendre ne mouvement social comme géej la dama koy faral di wax day am période boo xam ne day am. Euh, flux ak reflux marée bass ak marée haute amul benn mouvement social muy Sénégal muy bitim réew boo xam ne chaque fois marée haute la déedéet amul day am marée basse yenn saay li am solo mooy ci jamono marée basse yooyu mhm. nit yi nañu fexe mhm. bañ a xàddi di continuer di wax di continuer di wax parce que askanu Sénégal doful mhm. mu ngi déglu mu ngi toog mu ngi toog seetaan ku foog ne dafa dof nag yaa ngi nax sa bopp Omar El Béchir foofu lay daanelee def na vingt benn affaire bu ba ñu ci naan waaw le peuple soudanais moom peuple bi moom c'est un peuple de mouton vingt huit ans mais bi muy daanu Hosni Moubarak ñaata at defe naa quarante ans tamit wala façon yooyu Ben Ali ñaata vingt six ans xaw ma vingt huit ans waaye bi muy daanu mais un fait anodin la Sénégal ak feneen moo ci yem xam nga ce qui va se bés dina ñëw dina am benn déclic dina am benn élément déclencheur wax ji mooy jamono jooju élément déclencheur bu amee ñan ñoo nar a nekk parti politique wala mouvement yi ëpp doole. Hmm. est-ce que ce sont les forces de progrès wala les forces de réaction. parce que jamono jooju bu fekkee force de réaction ñoo ëpp doole dinañ utiliser élément déclencheur boobu le ras-le-bol de la population mais au service de la réaction maanaam dara du changer wala kon bu fekkee les forces progressistes hmm. ah dinañ utiliser élément déclencheur boobu hmm. pour transformer radicalement le Sénégal loolu mooy wax ci d'accord balaa ñu egg ci déclic boobu est-ce que tey gisoo ni euh, soppi doxalin jot na ci nit ñuy waxee askan wi ñu comprendre parce que euh, bu ñu xoolee démarche suñu dirigeant yi xuloo waxante lu ñaaw euh, tamante dëmm ñu jékki-jékki encore ñu gisaat leen ñu nekkaat benn alors que peuple bi tey ñoom ñu ku fa nekk ñoom ñoo la fa nekk est-ce que yéen tamit activistes yi société civile jotul tey ñu xoolaat beneen démarche boo xamante ni nii day dugg ci nopp askan wi ba xamante ne nii choix bu ñuy def bu ëllëgee duñ ko rëccu xam nga li am mooy lan mooy Sénégal ak fu nekk ci àddina saay bu nooteel amee ñaari posture moo am ñaari taxawaay nga njaaloo ak nooteel ànd ak nooteel parce que parce que sa teranga ci nga koy jëlee wala nga jàkkaarloog jàmmaarloog nooteel Sénégal saay bu amee nooteel dina am ñoo xam ne ñu am doole ñu ñàkk doole dinañ jàkkaarloog nooteel mm-hmm. Cheikh Anta Diop d'accord euh, Majmout Diop ak PAI AJMRDN AJPADS mun naa continuer d'accord ba jamono jii ñu naan ay Pastef ak ñoom seen li am mooy man d'accorduma ak ñi nga xam ne dañuy critiquer askan wi ci ne waaw askan wi xamul lu mu bëgg dafa dof dafa complice euh, boo amee un peuple de mouton c'est normal que nga am ay dirigeants lu affaire yooyu déedéet man li ma gëm man Guy Marius Sagna mooy askan wi comme suuf la mm-hmm. loo suuf du fen loo si ji mu sax li ñu yàgg ji nag ci suuf bu ñuy woowee askanu Sénégal mooy fen naxante ràmbaaj mhm. askanu Sénégal gis na fi Landing Savané moom moo ma ëpp ay at amoon na jamono joo xam ne AJ/PADS moo nekkoon troisième force politique ñëpp di ko naw tout à fait nit yi nu ñu doon xoolee Ousmane Sonko tey mhm. noonu lañ doon xoolee sinon mieux AJ/PADS mu sul bokk gouvernement mhm. gis na fi Talla Sylla gis na fi keneen ak keneen mais fu mujj lan la askan wi di gis ne ñoom ñëpp benn lañu. Mhm. askan wi nag day dem ba en en moment donné day naan mais ñii duñ ma jaral dara parce que effectivement dañuy bara yëgoo sama kaw dañuy diil dañuy waxtaan. tout ça par le deal ñu bari loolu léegi nag askan wi bu boobaa. mais moom dafa sonn. à un moment donné ñenn ci askan wi dinañ nangu 5000 francs ne garaawul amul problème je me moque. Mhm. de mon vote. Mhm. askan wi bu boobaa day naan boo ma woowee manifestation du ma ñëw. askan wi bu bu boobaa day ñëw naan non non non. dëgg la la preuve ci inondation yi doguma la foofu euh, ñi doon kaas ñëpp ni seen kër yi dafa taa terewul bi élection ñëwee euh, parti au pouvoir. mais foofu laay ñëwee askan wi day ñëw naan élection législative bon c' est vrai que li Ousmane Sonko di wax baax na mais 37000 voix rek laa koy jox. c' est vrai que lu muy wax baax na mais élection présidentielle 600000 voix rek laa koy jox troisième parce que askan day naan mais attends lan moo war a tax tey ma wóolu Ousmane Sonko. day am ñoo xam ne ils sont dubitatifs. Mhm. day am ñoo xam ne dañ ko seet seetantal parce que ison en ont vu d'autres avant li li am nag mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci gis-gisu ñoom lañu ñu mun woowee aji bëgg réew. Mhm. aji bëgg réew mooy li ñu woowee patriote ñi nga xam ne ñoom ñooy aji bëgg réew yi bu ñu xàddi. Mhm. parce que askan comme suuf la dafa soxla yenn saay mu seet setantal comme ginaar balaa moo dugg ci ngunu mi dina xool génnaat. xool génnaat taxaw une heure de temps ci buntu ngunu mi. parce que justement dafa yàgg gis ndobbin rey maamam pendant cinquante neuf ans donc foog ñu continuer liggéey donc askan wi doful dina jàpp ko mu ngi xool ne naan ah li lu muy wax neex na mhm. waaye nag est-ce que wóor na parce que gisoon nañ ñeneen avant lui ñoo xam ne ils ont fait la clandestinité ñoo mhm. xam ne ils ont été des révolutionnaires professionnels bàyyi seen njàng pour askan wi où est-ce que ça a fini on a donc askan wi moo tax ma doon wax sànq ne il faut la réconciliation entre la classe politique ou une certaine classe politique et le peuple loolu mooy wax ci parce que peuple bi nu muy xoolee politiciens yi mhm. mooy cam ñoom ñëpp benn lañu cam seen intérêt rek cam seen doom jàngewuñu ci école publique moo tax ñuy saboter école publique cam ñoom seen ñoom seen jabar ñu ngi wasinee bitim réew ñun suñu jabar mooy wasin ci hôpitaux yi moo tax suñu système de santé bi yàqu cam c'est c'est aux hommes politiques boo waxee homme politique waxuma rek ñu nekk ci parti politique yi. mooy ñi ñuy woowee la société dite civile ñeneen ñi ñoo war a am beneen taxawaay am beneen posture boo xam ne dañuy restore hope restore confiance restaurer la confiance restaurer l'espoir parce que espoir dafa tumranke léegi nag commencé na ñëw am na une nouvelle vague. mais ñooñu tamit bu ñu yàqamti ndaxte on en a vu d'autres avant eux. voilà voilà donc euh, euh, Babacar bu ñu bu ñu dellu see ci yow waxtaanee coowal 94 milliards yi. Mhm. bu ñu sukkandikoo ci commission d'enquête parlementaire bi est-ce que finalement l'affaire Mamour Diallo n'est pas devenue l'affaire Ousmane Sonko. oui xam nga euh, li mu wax léegi ah dafa am solo par rapport ak Landing Savané je crois que mas na ko wax ci benn plateau. Mhm. ma ni ñun ñi nga xam ni gisoon nañu Landing Savané ak ànd jëf ñuy dem. Euh, bi élection yi jeexee dama ni c'est le même procédé que Ousmane Sonko. ni ñu doon xoolee Landing Savané noonu la ñu doon xoolee Ousmane Sonko parce que moment boobu les partis de gauche peut-être Landing moo ci am bon c'est vrai bàcc li kii woon mais Landing dafa gënoon a radical. par rapport ak ñeneen ñi ba nga xamee ne amoon na espoir bu rëy bu ci amoon. ñu bëri nag jóge woon fa ah, ay mimi yi nga gis nii tout ça même le président Macky Sall sax daanaka ñooñu ñoo ko waraat mais xam nga 94 milliards yi boo gisee. Euh, li ma seetlu ci Ousmane Sonko par rapport à ces 94 la là mooy dafa lever benn leer boo xamee ni boo liiree rapport bi ah en tout cas synthèse du rapport bi. 21 mhm. pages yi. Mhm. Euh, di nga gis ni quand am na yu bëri yu ci génn yoo xam ne bokkul woon sax ak 94 milliards yi. yi mu mhm. wax léegi aujourd'hui gars yi dañ ko bëgg a limiter ci benn affaire maanaam lan 46 milliards la ñu débloqué ñii naan 2 milliards dans dans le rapport ils sont mis. deux milliards huit cent millions et quelques defe tey lu garaaw même Tahirou Sarr ba ñu doon wax gis nga lam cee dugaat même si intermédiation bi ñuy jiiñ euh, Ousmane Sonko ba liiree si rapport bi intermédiation boobu avec avec avocat wu euh, Tahirou Sarr maître Seydou dafa gis dañu jël ay page ay phrase yu bari paragraphe yu bëri di justifier l'implication de Tahirou Sarr mm-hmm. parce que tout simplement mënoon nañ ko jiiñ moom li ñu jiiñ léegi ausman Sonko intermédiation bi parce que dafa racheter paru société bi nee na mi ngi koy def depuis 1990 mais lu ci mën a am rek mooy il a tellement gagné dans cette affaire là parce que bu fekkee famille yi 2 milliards et quelque 3 lañ ci am moom mu racheté war see am 90 euh, milliards mais c' est inouï donc yooyu dafa am yu si feeñ yoo xam ne Sénégalais yi. Mm-hmm. il faut que rapport bi moi je crois que sax euh, Pastef sax ñoom euh, maanaam rapport boobu dañ dañ ko war a génne siiwal ko. Mm-hmm. parce que tout simplement am na yu si génn yu bëri yoo xam ni kii na ci conséquence politique yi mooy lan aujourd'hui peut-être que les gars de l'APR aussi da ci am benn benn genre haine peut-être yeggul foofu vis-à-vis de Ousmane Sonko mais ni ñuy communiquer